Heavy Mess.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 ba gis ko sàkk ci safara mala yi noonu naka noonu danañu feebar ñu seeti vétérinaire saytu seen jàngoro ba gis ko sàkk ci safara waaye nag jàngoroy réew mi moom kenn saytu ko ba ci sàkk safara moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax ay waay lan moo dal suñu réew mi ma ne lii xew ci réew mi tiis na laa wax réew moo xam ni faat bakkan baa ngi mel ni tuleeg Mali léegi dañ lay dogale mbaa ñu fekk la sa bërëbu liggéeyukaay agressé la ba noppi ay waay lan moo dal suñu réew mi rax ci dolli léegi réew mi tootoo xam sax kan ngay wóolu ndax ki la gën a jege nga gën a am ci moom kóolu te mën na laa faat xoolal ma la xewoon fële ca Tamba soxna si ñu fa faatoon te ka ko faatoon boo seetee ku ko jege woon la jege waa kër gi faat ko ba noppi dugg ci ab groupe whatsapp di xiin xiinee ka tiis tiis lu ma dootoo xam koy wóolu laa wax xoolal ma soxna si di Fatoumata Makhtar Ndiaye moom it ko gën a jege ab sofooram moo ko faat waaye ma ne réew mi kat ngay wóolu bali xew keroog ca Pikine soxna soosu di ki ne gay ko ko gënoon a jege ci ki muy liggéeyandool moo ko fekk ci bérébu liggéeyu kaayam càmmate ko ba mu jaare fa ñàkk bakkanam ma ne kan ngay wóolu laa wax ba mu ko defee ba noppi tellu ci bërëb bi di xiin xiinee ka tiis tiis lu moom réew mi nag léegi ñoo ngi enlever xale yu ndaw yi di leen faat sacrifice rituel yi maara deetaal yi ñaata bakkanu nit a ci dem ma ne réew mi li fi xew doy na waar laa wax ma ne ñu ngi sàkku ñu nga xam ne nii seeni xel weerul viol gi mel ni tulleeg màlli ma ne li xew ci réew mi tiis na laa la wax ñoxor njaay rek rek nga dégg ne am na ku xaru ba bi ci mujj ca Dakar ab soxna moo tëbee ci ab étage daanu jaare fa ñàkk bakkanam réew mi léegi saa boo yewoo dégg l'accident boo xam ni ñaata bakkan lay yóbbu ma ne liy xew ci réew mi tiis na laa la wax may laaj nag est-ce que sax ñun amuñu lu ñu def yàlla ma ne mat naa laaj mooy li nit yàlla ba waxoon rek sang réew mi jot na mbaa ñun dëppal ko la xew ca Tiwaawan tiis na metti na hôpital bi duppee Mame Abdou Aziz Sy Dabakh moo fa lakk ca pédiatrie maanaam fa ñu denc liir yu ndaw yi ba fukki liir ak benn lakk ci ba xam jaare fa ñàkk seen bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waalan moo dal suñu réew mi réew mi yeewoo tiis gu méttee metti ndax nag bakkan du caaxaan te wolof njaay moo ne bu ndox tuuroo an baq des man ma yokk ci nag ci kaw nag ñu ñàkk mën a rootiwaat waaye mooy dëgg laa wax li xew ci suñu hôpitaux yi nag ca dëgg-dëgg jaaduwul gannaaw jëyee jooju am ca Tiwaawan nag léegi nag wax ji nag mooy lan moo war a taal hôpital bi waaw doon na lu jara laaj ak hôpital bi ba muy tàkk est-ce yu tax jëyee jooju mënoon a ñàkk amoon na fa ak it l'hôpital boobu ba muy tàkk est-ce am na ñamu fa fekkoon dëgg la nag Sénégal lu xew ñu ne ndogalu yàlla waaye nag ak jéyee ji tol nii jot nañu situer responsabilité yi càmbar bu baax ba xam ñacca seen loxo takk ñu teg leen ci yoon ma ne looloy dëgg laa wax fi mu ne nag senegal faw ñu ñeme ko wax suñu hôpitaux yi ñoo gën a wopp fuuf malade ya fa tëdd ma ne ñaata yoon na xalif général des Tidiane interpellé autorité yi ne leen l'hôpital bu maam Abdou Aziz Dabakh boobu wopp gi mu wopp jéggi na dayoo waaye mu mel ni ku dugg ci noppi kon nag tey bu jéyee ji amee bu ñu ne yegguñu woon tiniñu woon ma ne Sénégal ñoo mën a seetaan jot na nag ñu taxaw xoolante ci bët waxante dëgg te jublu ci priorité yi ndax am réew mu éducation bi wopp maara dee taali mbay meeg càmm gi wopp maara dee taali bérébu fajukaay yi wopp maari ñu teg ci insécurité ba wopp maari de ma ne loolu réew mu mu dal war naa xoolaat boppam ba noppi ñu toll ci àddina boo xam ne fii mu ne ñu ngi jëm ci crise yu métti la wax ndax yëngu-yëngu àdduna bi ci Afrique du ci mucc nag senegal du ci mucc moo tax li ñu war a def dëgg-dëgg mooy kilifa yi tenir in langage de vérité taxaw wax dëgg askan wi ndax mag weer yi ñu jëm dund gi dana metti njag yi dana gën a yokku moo tax na fi mu toll ni dëgg-dëgg réew mi li mu laaj ñépp àndandoo nekk benn songandoo crise bi dëgg la nag annoncé nañu nawet bu bari maanaam gént ko yonent yàlla yusufa firi woon kon mun nañ ne ñu ngi ci juróom ñaari atu nag yu duuf ya li ñu war nag mooy kaddu illeer te jublu ci mbay mi ñu àndandoo song suuf si muy autorité yi sëriñ si société civile beeg sénégalais yépp taxaw tem balaa ati juróom ñaari nag yu yooyi ngi ñëw waaye nag Sénégal fi ñu toll li ñu toll mooy politique politique élection politique élection adduna bi fi mu toll mat naa taxaw de ndax politique doo xaar ba lëf bett la mu dooroon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz